tey suñu taxawaay dafa dellu le rek c'est une activité en termes de campagne électorale en direction de la présidentielle de 2024 dimanche prochain inshallah. donc nous sommes venus aujourd'hui avec ak euh, camarades Yep. ñu dans la ville de Rufisque particulièrement pour def une euh, sortie de une sortie majeure de ci Si on est les rues de nga nous dans la commune particulièrement de Rufisque Est pour voir aussi

On ne doit pas élire n'importe qui parce que euh, la gestion d'un pays war ñu ko teg si loxo kenn ku mu nekk donc si loxo kii ñu ko war a teg dëgg-dëgg ñun am nañ yaakaar bu baax si suñu candidat Aliou Mamadou Dia parce que am na expertise bi am na la sagesse am na aussi euh, l'accompagnement d'un appareil comme le parti de l'unité et di rassemblement jafe-jafe yi nga xam ne yi Tëngéej mu ngi koy jàkkoonteel mom nek na si ko xamne ki il est en pole position pour wax ko mën a saafara. réew développement am dafa sooxe moom loolu am expertise amna ci expérience amna ci vécu ba mu nek lo xamne li nit ñëpp reconnaître nañ ko à travers le monde parce que def na ses preuves au niveau des Nations Unies. donc koku nak Sénégal wara am chance pour redresser wu mom lañuy wo bokk Sénégalais yëpp tous les électeurs pour ñu voter massivement en en sa faveur parce que lolu ñukay bëgg a jox bëgg a teg si loxoom lu mu mën la lu mu xam la lu mu def la ba am si ndam faneen fii nag war a nekk euh, euh, la la cerise sur le gâteau mu def ko si réewam. te jaadu na bu fekkente ne ñëpp dañuy présenter seen candidat ñun ñu bañ a am complexe pour présenter suñu candidat parce que pour dire vrai par rapport ak 19 candidats yi nga xamante ne ñoom lañ présenter yëpp suñu candidat mën nañu wax ne c'est le candidat qui a le meilleur profil qui a plus d'expérience par rapport aux autres qui a plus de compétences aussi par rapport aux autres donc bu fekkee ne dañu tollu ci tànn njiitu réew lu important la ñu wan Sénégal yëpp wax leen kan mooy sunu candidat pour tànn bi nekk tànn bu mucc pour ëllëg li nga xamante ne moom la ñuy séntu si Sénégal moom la ñuy séntu si moom si mu diriger Sénégal mu nekk président boo xamante ne dina mën a taxaw par rapport ak jafe-jafe sénégalais dina mën a taxaw par rapport ak problème yi nga xamante ne ñoom la sénégalais yi di jànkonteel dina mën a taxaw ngir saafara yëpp surtout par rapport ak demande bi nga xamante ne jeunesse bi yaakaar bi nga xamante ne waajur yi am nañ ko si seen si seen ay njaboot yaakaar yi nga xamante ne aussi jeunesse bi am nañ ko par rapport ak taxaw ñi ñëpp ñoo xamante ne dafa dellu si seen wàllu jur pour une meilleure vie ngir dund bu am naataange loolu moo tax ñuy présenter ñëpp sunu programme ak suñu candidat bi suñu programme bi nga xamante ne mooy nit ak naataange